أيس مني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي أيس مني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله حبل في الدريق bi ahli badrin al-usud kadari nafaa li xayri llahu fi ndakaaru kulla ajandi jarrahu makaaru allamani rahmanu fi safina asalaamaaleykum bokk jullit yi bokki taalibe yi noo ngi demoon ah, Mayumba jaar Lambarana bis bi nga xam ne nag moo daan ubbi muy mars bi ren mooy tëj loolu nag li ko waral mooy jamono yu tëddee tey daa mel ni sax looloo waram ndax dem dox li ngay dox ba noppi nag nit ñi foog ñu sonn ci kilomètres yi nga daw nga ne sax léegi damay dox sant si loolu nag Serigne Cheikh mbeng mi le président euh, de caravane yomba laa ci taxawal nii war koo laaj dinaa ko laaj fii mooy fan ndax yi bari na image yoo xam ni fii lu symbolique la ci Gabon waaye dina ma wax lan moo fi xew ndax yaakaar naa am na jaar-jaar ak sëriñ loolu yi nag dañ ci sant sëñ Tuubaa bu seex waxee ba noppi nag incha allah dinañ leen indil dëkk yi jaar ndax bind nañ ko ba nu xam ni sëñ Tuubaa sori lañ ko yóbbu Serigne Cheikh ginnaaw boo nuyoo santaat mbooloo mi fii mooy fan. sëñ Mamor jërëjëf fii ñu daje tey mooy ancien place d'indépendance bu Gabon euh, sëñ Mamor ginnaaw bu ñu nuyoo sëñ Mountakha mi nga xam ni ci ndigalam la ñuy defee liggéey bi di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ñu ngi nuyu sëñ Amdi Fall moom Cheikh Modou Mbend Fall. ci turu maam Cheikh Ibrahima Fall di wax ni sëñ maam li am ba xew fii ba ñu daje fi mooy jëmm ju màgg ju tedd ju wéetal yàlla te ko mu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ju am gisgis bu yaatu sun borom nam ma jaarale ci moom may yu bari mu na ma ram mu ummatu Rasulullah sallallahu jëmm jooju moo jaaroon fii sëñ maam jëmm jooju fii nu jàkkaarlool ndox mii nga gis fi la débarcadeur bi nga xam ni fi la gaal gi wàcce woon bi ñu abolire esclavage 47 esclaves ndax booba dañoo abolir esclave fekk ñu jàppal leen ci ñu ne bato ñu taxawal bato bi wàcce leen daan ni fii mooy Libreville loolu moo sos dëkk bi Libreville Libreville googu nag biñ demee ba 1895 ñu jëlewaat Sëñ Touba Sénégal jaar ak moom ci jaar-jaar yu sori yoo xam ne du xaj ci jataay bi waaye wàccaat ak moom fii ci débarcadère bañ wàcce woon jàmbaar yooyee moom mu teg ñaari tànkam ni yasarali yi mun naa la daal li mber weli man xaadali ma xaba an kullu wali mbaa yasarali mun naa la daal Libreville keroog la door a tudd boo demee ca place ba di nga fekk stade boo xam ne jëm juñ jàpp fab ay ceen def ko ci loxo yi dagg ceen yi muy lang ba nga fa kookee mooy wane ni fii leen foofee di nga fa fekk ñaari pilon yoo xam dañ leen tabax ñu jóg ngir symboliser wàccuk esclave yi ci jataay boobu waaye wàccuk Cheikh Amadou Bamba ci jataay boobu ñaari pilon yoo fa nekk symboliser na ñaari histoire yoo xam ni libération kaw lay wone waaye li libéré dëkk bi dëgg dëgg nag mooy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul mi wàccoon foofu kon daal sëñ Mamor barab bii nag fii lañ tey ñetti weer barab bii ñu ko mosquée bii nekk suñ ginnaaw Cheikh fa juróom-ñetti rakka bàyyi fi murid yi fii la bi mu ñibbi seet fi la jaaraat moom la sëñ Musaa Ka naan keroog la Bamba gis junniy seet ak tëng yu mës mësi mel ni soq mu laaj ñu ni ko Bamba mooy ginaar gi làq woon sa ginnaaw ba nga fa jaaree loo booba la xewoon mu ni ko booba ba léegi waa ci yàpp faatu moo tax ñu giir xaar baa xiiree ayaat barab bii fi la sëñ Tuubaa bàyyi woon mag moom nga xam ne mooy nam sa keeta nga xam ne moo tabax moo tabax daaru mar Faaga maam Namsa mu mel ni fii Ousmane Gabon fii lañ ko jëlee woon takkal ko ticket teg ko ci gaal mu dem Sénégal boo demee daal Khoudoss di nga fa gis askanu Konté Konté kon daal fii fu am histoire ngi nii bu rëy fii lañ doon fab fukki doomi ngurdu comme pension alimentaire di ko jox sëñ am mu koy jalax bâtiment ba suñ ginnaaw mooy trésor public gu Gabon fa sëñ ba doon jëla xaalis ba fa la trésor public gu Gabon tey jii nekk ñu jàkkaarloo moom ni trésor public Sénégal bi nga xam ni fa la sëñ Touba jóge woon wet gii ginnaaw bâtiment bi consul France fi ne centre ville Gabon nag consul France ambassade Sénégal loolu moo fi sax kon daal lii comme introduction ba sëñ Mamor moom laa doon dugal rek xam naa jërëjëf incha allah dinañ leen ko indil gis nga noonu soxna yaa ngi Serigne Cheikh Khadim Fall ñëw teew xam Euh, lii maamam bég na ci tey ndax maam Cheikh Ibrahima Fall benn problème rek la amoon mooy ndamul Serigne Touba na ko am aller mais na ko am retour Serigne Cheikh Khadim topp loolu. journée premier mai bu leen fàttali léegi nag waa Gabon bokk nañ journée premier mai ndax bi ngeen taxawalee nii mooy jàmbaar ji nga xam ne daa bàyyi yitteem ñëw ànd ak ñun wàcc jóge France jaar Turquie def ay vol yu bari moom Serigne Cheikh Khadim waaye noonu la def fas yéene ñëw ànd ak lii waaye tamit noonu la defee le 13 juillet. fële ca France muy taxawal fa bisub maam Cheikh Ibra Fall waaye war naa mën a ne ndax France moom euh, mujjoon na commandant Carpo Card dafa dem ba tudd Cheikh Ibrahima Fall doom Card mu ñu koy wax Ibrahima Fall Card demoon na ci ndar ba tubaab yi dañ koy estimé di ko photo di ko portélé di wax naan il incarne à sa personne toute la gentillesse la générosité l'élégance la prison nag foofu la ñuy mujjee sëñ Maam Mor nag ma bëgg a ñëw rek nag ci caravane ren bi hmm. muy caravane boo xam ne dafa làmboo ñetti poñ yoo xam ne dafa am solo ndaxte yaakaar naa ne mi ngi bëgg a viral vidéo yaa ngi ci Facebook bi jox nañ murid yi suuf si nga xam ne ñu ngi ko doon sàkku fii ci Gabon juróomi at nga xam ni dafa nekkoon loo xam ne lu jafe la ndax fañ ko dencoon nee nañ foofu Vatican moo ko moom waaye nag xëy na joxuñuñ sax jëmmi foofa waaye fañ ñu jox ñun moo ñu gënal ndax foofa la sëñ bi daan wàcc di jàpp moom lañ ñu jox démb bu muy xew-xew bu mag nag ci ñun maire biñ ko joxit ànd lool ci ni nga xam ne ñun noonu la ñu bëggee sëriñ bi noonu lañ ko warmaalee ba gën ñoo sax daanaka warmaal sëriñ bi ba jox ñu nag woo xam ne mi ngi ko jëndee million lu teg tere la ñu ko ñun gani sëñ Touba yi ñu koy sant bu baax loolu di ñaareelu xew-xew ba ñetteel ba muy waa église waa église ñëw ànd ak ñun mbir mi ndax loolu rek day indi firnde sa nga xam ni waa église ñoo jàppoon sañ bi foofu seen complicité la woon waaye tey gis nañu waa église nangu nañ ànd ak ñun ci li nga xam ni mooy màggal gi di topp jaar-jaari sañ bi ñu dellu rek di sant suñu borom. résumément un coup en français. <laughs> voilà merci maman donc je vais résumer mes propos en en français à l'endroit de mes frères et sœurs gabonais et aussi de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes ici sur le site pour marché sur les sites là où le cheikh avait résidé. On est en face de la mosquée centrale. On a dit que le cheikh y priait souvent et les Gabonais l'ont érigé en mosquée. Donc les Gabonais dañu am tawfeex peut-être te xamuñu ko. Euh, leneen on va marcher également sur le débarcadère là où on avait débarqué le cheikh mais le lieu le plus mythique c'est la mosquée de la Montagne Sainte. Je pense que nous tous nous avons entendu l'histoire qui s'est passée. Les colons ont voulu éliminer là-bas le chèque et le bon Dieu a envoyé ce qu'on appelle les soldats de Badr. Et cette place fut achetée par les Mourides et fut érigée en mosquée. Et cette mosquée porte le nom de Cheikh Khadim. Mais cette année, je voudrais revenir sur trois points dans cette caravane. Nous avons acquis les terres que nous demandions il y a très longtemps aux autorités gabonaises. Nous remercions au passage le président Oligui et toutes les autorités gabonaises de par leur implication. Hier, le maire de Mayomba, le colonel, nous a montré le site attribué aux Sénégalais pour le chèque. Et c'est là où le chèque faisait ses ablutions. Ça nous va droit au cœur. À part ça, cela aussi, il nous a donné un un très très grand taureau comme présent. Ce geste est inestimable pour nous. Également, on a constaté l'implication de l'Église. Cela nous va toujours droit au cœur. Nous remercions le peuple gabonais pour leur implication et pour leur acceptation du chèque et de ce que le bon Dieu a fait de lui. kon daal fii moom mooy barab bi nga xam ni fi la sëñ Touba sax ñetti weeru Libreville am fi lañ ko jëlee woon jëmee ko Montagne sent waaye ndem Montagne Sainte lañ jëm fa la ñuy arrêté marche bi ci jumaay sëñ Touba ji mm. kon dañuy dox nii jëm ci kanam. ba débarcadère bi nga xam fi la sëñ Touba wàccoon te bi nga xamee ni président Mor Bongo toog na ci réew mi mu def fa palais de mu jàkkaarloog moom. foofu fa barab bi nga xam ni bi sëñ bi àggee fa la woon ñaar rakkam bâtiment ba mu jullee woon ñaar rakkam ñu koy wax malayka te kenn ku ne xam na ni ku ànd ak ahlul badr buñ demee ba fa nga jullee woon ñaar rakka banque bi gën a rëy ci dëkk bi muy BGF fii dafa seen siège central ñu tuddee ko muy bees bees muy banque banque BGF fii ñu def ko muy malayka kon mel na ni loolu def naa ku ko doon dégg it mën nga malaaka moom ku ne xam na ko waaye nag li tax ñuy gaawantu mooy pale présidentiel bi moo nekk ci kanam te am na lu ñu mayut moo tax ñuy expliqué waa leen bu ñu rombee débarcadère bi dinañ ko gis bu ñu ko traversé dem montagne seen lu ñu ci may rek ci jàll mu baax ñu xam ne mënuñu ko amee dem taxawee fa num ñu nu ñu soobee waaye daal mën nañ koo gis mën nañoo jàll montagne sent loolu mooy li ñu bëggoon a wax ñu dox ndànk rek dem ca kanam si kar su rek ñu ànd ak sëñ bi dem ba ci barab boobu laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah إله إلا الله لا إله fàttaliku téeméeri at yi ñu ko denc ca Daaru Xudoos ñu koy fàttaliku ca Masaalikul Jinaan ma leen di wax ne leen téeméeri at yi fii la waroon a toog téeméeri at yi fii la waroon a toog oh gën ko baax Il a tant crié, il a fait son Touba wàccoon Xaadim Rasoul en 1895 fii la tegoon ñaari tànkam ni yasara lii mun naa la daal Libreville man xaadali ma xaaba an kullu wali mooy débarcadeur bi ngeen jàkkaar moom moo nekk ni dara suppiku ci mi ngi fi ba tey barab bii nag bi nga xamee ne abolir nañ esclavage dafa am bateau boo xam ne yaboon na 47 esclaves ñoom lañ jëloon wàcce leen fii boo xoolee na la ca kanam am na nit ku tàllal ay loxoom ay ceen nekk ci ñu dagg ko lii moo waral ñu naan libre Libreville ba ñu tekki ay at nag Cheikh Ahmad Bamba door fee ñëw nag moom mi nga xam moo libéré addina bépp ñëw jaar ci même débarcadère bi moo tax ñaari pylône lañ fa def yoo xam ne benn bi mooy mooy symboliser libération esclavage waaye benn bi mooy symboliser nag dikk gi sëñ Tuubaa dikkoon fii te kenn ku ne xam ne ni booba président Omar Bongo tabaxagul pale bii mu doon palais daal la République jàkkaarloo ak moom moom président boobu nag bu sëñ Mountakha Mourtala Mbacké mosoon ñëw fii daan na ko recevoir ci pale bi ba ci yoon wi nga xam ni nag ñëw na fi mu aal ko avion recevoir ko ak ministre de l'intérieur yàlla dogal nag mu mel ni da caa tombé waaye ministre de l'intérieur ba dëkk Mayomba ni ko président boo ko aalee avion maay ànd ak moom Mayomba. loolu nag biñ ko doxalee lu luye nañ fi ñaari avion ci mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Fall Bousso liggéey boobu dem wàcc aéroport Mayomba avion sëñ Mourtala ba wàcc. ministre bi ànd ak sëñ Mourtala bañ dem ca biir dëkk ba wanoon na ko fa barab boo xam ne moomale na ko waaye la ca aju loolu xam ne taxuñoo jóg waaye li wér daal mooy njiitu réew mi nga xam ne moo nekkoon fii mel na ni ku liggéeyal sëñ Tuubaa fayu ndax moo fi nekk ba doyal doomam nekk fi ba doyal te kii fi nekk te ji ab jarbaata ba kon nag mu mel ni ñoom fi ne ni nguur gi daa suppiku mayetuñ nit ñi ñu dem ba ca débarcadère ba di fa taxaw loolu xam ngeen ci sécurité xañ na loolu sañ nañ ko moo tax nañ ñu bëgg a ñëw ñu wan leen ko xam ni présidence baa ngi bi sëñ Tuubaa wàccee fee nag daa dox ay jéego bâtiment bii mooy bâtiment malaayika malaayika moo ne nii malaayika la tudd ñu fi ñëw ñëpp noonu lañ ko fekk mu tudd ko waaye mooy siège u banque fi moom moo nekk ni ñu jàkkaar lool banque bi nga xam ne boo gisee étoile beeb lee mooy seen semb mooy seen kii mooy seen bi gis ngeen ko ni ñu bind ko ci moom lii dalee lépp mooy siège u BGFI waaye malaayika la tudd ku ànd ak ahlu badr nag nga ni nga wax ni nafaali xayri laaw xablu fii ndari bi ahlil badri usudu kadari loolee ma waraloon mu naan bilaay faraxtu nasaara jéewali kon moom coobaree boppam ci ko andi woon fii te sukkandiku ci ndigalul yàlla ak yonent bi mu doon liggéeyal kon loolu résultat bi mi ngi nii ñëpp teg nañ seen bët buñ fi jogee nag dinañ mën a dugg ci oto yi yéeg nga xam ne histoire bi xew xewoon fii lu ci bari gis nañ ko teg nañ suñ bët waaye ñu nga jëm montagne sant nga nga xam ne nag sëñ Tuubaa dem na fa ci ay xew yoo xam ne buñ fa àggee ginaaw buñ julee timis danañ leeral yenn ci loo xam ni xew na ci dëkk bi te buñu te jataay bi mayuñu ko woon fii foofa ca montagne seen ñu waxtaanee fa foofee lañ fas yéene sëñ bi ñaanal mbooloo mi bu ko defee nag activité karawaanu Mayumba bu boobaa foofa lay taxawee ñu ne ci dëkk bi nag bu boobaa sañ nañoo gëstu ndax fii kat dañoo wone liñ mën a wone waaye li sëñ bi daj ci dëkk bi fii sëñ Tuubaa nekk na fi ñu yóbbu ko lu ñu naan île de Bourouki suñ ginnaaw la nekk fii mooy île il de Bouriki boobu sëñ Tuubaa bañ ko fa yóbboo kenn dëkk fa ab àll ay rab rek ka fa ne dañ ko faa sànni waaye amuñu du ñu ñu dellu si fekk ko fañ ko jëlee woon. kon xew-xew yi nga xam ne am na fi te barab yam nekkoon doon barab yoo xam ne c'est pas accessible kenn munu faa yóbbu sa bopp loolu dinañ ko expliquer fee ca montagne ca montagne sainte incha allah ak loo xam ne nit daal na ko ci dégg nag te tey mënu koo xam te ñëw nga Gabon lool sa sa sab laaj war ca ak bu boobaa lañ ca xam ñu wax la ko waaye mbirum sëñ Tuubaa moom doonul lu ñu mën a muri lépp waaye lu leen fi wax daal dina dëppoo ak loo xam ne am nañ fi fanweeri at ak benn ci ren wala weeri at ak ñeent ay weer ko te mat fan fanweeri at ak juróom fekk nañ fi sëñ Moustapha Lo sëñ moo Modou Mamoun Niang fekk na fi ñi fi ñëwoon nag ak ñañ fi fekkoon ñu mel ni am na Baye Diouf mu nekkoon fii moo xam ne yàggoon na fi lool lool ndax ay ind jamono indépendance sax fekkoon na mu ñëw fi la yàgg dañu doon jëlee ca ñooñu loolu dong lañ leen man nett li mënuñu leen wax luñ xamul waaye lañ ca xam dinañ ko wax leneen li ci des nag mbirum sëñ saa yu na mee mu feeñ rek day feeñ waaw bu ko defee loolu lañ bëggoon a jot ci Cheikh Bassirou kon xam naa ni bu dee sa ndigal boo ñaanalee ndegam timis gi soreetul bu boobaa dañuy mën a jàll montage seen nag bu ko defee li aju ci waxtaan yi ñu mën koo àggale foofu Mbàkke nangu leen ñaan maa ngi jottali mbooloo mi nuyoo sëñ Mourtala moom Serigne Fall jërëjëf bi mu gisee image yi démb dafa dafa tàggoog sago <coughs> mooy teewaayu muy tawfeex ju rëy